Mamadou Mbaye kan lu muy lu muy yor yoruma dara mon ami man lu baax laa yoruma dara portable laa yor mais vous avez laissé ça on fait notre boulot ma ne portable laa yor mais vous avez laissé ça on fait notre boulot Thank you. Diop di nga kontaan. yàlla na yàlla may ndam. yàlla na yàlla may ndam bala ngay. gis xale yii lii nga xam ne moom la ñu melal stade Demba Diop nii yaakaar naa ne lii xel dem na fu sori ci wàllu lam xel dem na fu sori békaay fu ndax lii mësul am lu dul ci li nga xam ni moo nekkoon keroog bi nga xamee ni ñii si Njaay mi ngi dugal ñaari bi diggante Sénégal ak Tunisie fii la amoon jeu de l'amitié jeu de l'amitié bu fàtte ni békaay stade bi ñu ngi tuddoon stade de l'amitié 1967 1967 lan ko dippee ki nga xam ne mooy Demba Diop Demba Diop mi nga xam ne nekkoon na ministre de la jeunesse sport mi nekkoon jëkkëru Caroline Faye mi nga xam moo nekk moo njëkk a nekk député du Sénégal Bécaye léegi noonu waaw ah, mi ngi noonu Bécaye mi ngay taxaw bar bar na fi ci luul waaw na fasam ah waaw ah, Bécaye wax nga dëgg julli bari na fasam ah. Abdoul Aziz mi ngi noonu julli na Géejawaay julli na. julli na de. waaw Bécaye Bécaye ban waxtu lay julli. réew mi dox na ba tey waaye lu mel nii ah mosu fee am ndax Bécaye baayu Balla Gaye numéro 2 Doubalès fii la dajee Mbaye Gueye waaye koro mel woon nii Balla Balla Balla numéro 2 waa Doubalès fii la delloo rek Balla Gaye fii la Moussa Diame waaye melul nii keroog Papa Kane fii la delloo waaye melul nii Bécaye fii. mbokk yi dañu ne ndax Souleye Ndoye am na lii ñu ne déedéet ñu ne ndax Abdourahmane am na lii ñu ne déedéet ñu ndax Doudou Baka am na lii ñu ne waa ndax Robert Diouf am na lii ak Mbaye Gueye. waaw waaw waaw Ndiaye te lamb gars yi war nañoo wax ci li koy defar parce que tourisme bu mu fexee ba adapté la haute saison avec la saison de lutte mën na nekk un produit très vendable à l'extérieur. effectivement loolu yaakaar naa ni il faut y réfléchir. loolu borom xam-xam yi Aziz ak leneen loo xam ne dañ ci war a réfléchir. waaw béykat yi lan la. yaakaar naa ni dañuy bàyyi ñu déglu tuus mi. kay xale yi bu ñu déggee jaaxal na ma. ma ngi xool waaye daay na daal gën a fi dégg loolu. noonu Cerno moo ko sotti bitel bi noonu bitel bi lépp alxuraan bekay bekay Abdoul Aziz waaw bekay euh, Abdoul Aziz làmb làmb doy na waar waaw mais doy na waar bekay parce que boo jëmul xam nga fu ma xam nga ñu ko bi la fuuf bi la fuuf maa la ko boo xoolee ndeysaan ni bal la ñëw ci bi la fot fot te ma doon wax ci gala jàpp ko parce que li mu doxee ak li mu wane gala jàpp waru na ko te bekay 40 millions du affaire jàkkaat déedéet du affaire jàkkaat 40 millions normalement kenn mënu ko def te te daal bis dafa war a ëpp. xam na loxo yi noonu. El Abdou Aziz Abdou boot na nu Modou boot ko bootee woon boot na nu Modou Lo. buñ ko bootee woon Soteel. Modou Lo ngi noonu du fer bay wàcc. ndeysaan fer na. ah fer na yàgg na. waaw bootaay bi nag. Abdou Aziz. waaw Bécaye bootaay bi lu nekk. waaw lu nekk. am na am na muy jaar. waaw dañuy bañ mu laal suuf. wax nañ dëgg. ah loolu la ñuy bañ mu laal. mujjee. def na fi jaloore. champion boobu. Abdou Aziz. waaw dafa kay. sama xel dem na ci Ibou Ndapha dafa feebar. dëgg la kay yàlla ko yàlla yëkkati yàlla ko yàlla yëkkati waaye xam nga démb. dëgg la tiis dal na ci lamb. dëgg la muy tey sa junior. feneen yaa tudd Mamadou Dia. waaw yaa tudd Waljojo. waaw yaa tudd Joseph Mbaye. waaw ñooñu ñëpp yaa leen di ak Babacar Sarr Separ. ndeysaan te Makka. waaw yaa tudd Lamine Gueye. lii Brésil moo ko defoon. waaw. final 1970. wa ndax ñoo gën a def ca Mexique. waaw. day def. ñoom Pele Kostaawo. Kostaawo Begay. Ah, en 1973. waaw gendarme Dakar di final fii ak Jaraaf. dëgg la def ko def ko tey Modou Lo defaat ko. waaw waaw mais mais mais Begay. sax nan pitax bi. ma dem na pitax ma dem na. dem na. dem na. dem na Begay. dem na cee supporter am. waay waay waay. mën na ay Mor Diop dem. ma nga jëm Grand Dakar. waaw waaw mais gars yi yuuxu nañu toll nañu seen loxo. bu daanu woon xanaa bu daanu woon la ñu wax. wallaay laay waaye ba mu naawee la. ñoom kontaan nañu de. waaw waaw kontaan nañu. ñoom kontaan nañu. ndeysaan. wala kay numéro deux. wala kay numéro deux. waaw yëngal na yëngal na ñu mu àndal. nee na moom la. nee na moom la. nee na moom la. daanaan. xoolu Modou Lo. Modou Lo ñu noonu. xoolu Modou Lo xoolu xoolu Modou Lo. yëkkati na Senghor bi. xoolu Modou Lo. ndeysaan. mi ngi dund xibla yëpp Dakar. Bantamba tey ci xew-xew bu mag bi Luc Nicolaï 2STV ak sponsor yu mag yi mu àndal ñu fas yéene leen a bégal tey ci Bantamba ci lamb ju mag Balla Gaye ak Modou Lo mbokk yi tey wax ju du ci bari di ngeen di gis ci Bantamba lu ngeen gis woon ci direct bi mbokk kon foofu rek la ñuy yem.